mbooloo am na mu topp moo xam ne dañ doon wut gëmante wuñu ba ñu dàq leen ñu daw tafu ci Idrissa gëmantewuñu wuñu de buñ gëmante woon Idrissa lañ doon àndal ci jël benn ndax Idrissa bi gëmoon Khalifa Sall àndoon na ak moom nekk ci gannaawam pour député kàngam yu mag yi maasuk Amadou gi maasuk Ousmane Tanor gi ak ñeneen ñi ma limul ñu ci gannaaw Macky Sall ak ñun man de bu dul woon Macky làmb ji dinaa ci dem te damay defar ba mu baax bu dul woon Macky Sall damay defar ba mu baax ndax kenn mënumaa wax loo def ci réew mi te defuma lu toll noonu moi je suis un opérateur économique 21 ans laa jëkk a am 1 million 98 laa jëkk a nekk député titulaire comme ni ko Seydina waxee te département Mbacké ma faloon. quatre législature laa am nañ ma wax ko ko fi am maa ngi Moussa mais bokkoon nañu à législature may profité kon ñoom ñëpp Cheikh Mbacké maa ngi lay nuyu ndax suma mbokk suma doomu baay barki dem laa mujj këram monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la ziyaare